yi Assane le benjamin des promoteurs le promoteur de la jeunesse l'avant série de Kachalik Wolandi leen di woo ci lamb ju muy am samedi le 26 juin ak dimanche le 27 juin fii ci zone de recachement bu AIDB ci samedi bi ñuy amal tournoi raw gàddu bu ñu demee ba ci dimanche bi nag ci le combat yi am muy ay combat yu neex bu ci dàq sa morom rek nga ne bii la ci combat nommé yi Thiat Junior dana fa jàkkaarloog Petit Niang bu xiinin loolu nag première édition drapeau id 6 PDG Zika Serigne sarle. nekk responsable politique bennoo Bokk Yaakaar fii ci Kër Moussa Idi Siis nit ku mën a def social foo jaar baat bi benn la ñëpp d' accord ne Idi nit ku baax la te lu jeunesse bi woote moo fay njëkk moo fay mujj Assane Diouf na ma Idi Siis mii dama naw jikkoom moo tax ma tuddee ko drapo bi ama 50 dana fa jàkkaarloo Karbala doomu cikki loolu mooy drapo Ndiouga Diouf PDG Ndiouga sans frontière nekk responsable politique fii ci Kër Moussa Ndiouga Diouf nag lépp luy développement Kër a ngi ci combat bi di dox ci diggante soq bu suur ak pôle bu kirabul politique groupe solution fii ci Thiès Moussa Ndione nag nee na dafa jël lépp delloo ko kilifaam PDGm kooku mooy Jibi Siis PDG groupe solution de Sarr doomu kacalik dana fa jàkkaarloog booy mbelax loolu mooy drapeau JBF borom baatu or bi la voix d'or ba léegi ci combat yi caatu paloor dana fa jàkkaarloog caatu coor muy combat ba nga xam ne ñaari caat ñoo koy bëre loolu mooy drapeau Modou Siis borom Siis teranga ah mbokk yi borom teranga yaa ko ah Assane Diouf ñan ñooy say invité d'honneur mu ne ma jàppal Ousmane Ciss président ARC Astou Yaga Diouf responsable politique ak Aliou Diouf jeune leader di xale bu am jom Nafi Ciss présidente AIC Cambox ba léegi ci invité d'honneur yi Astou Diouf Kacalik Djibi Ciss PDG group solution ak Moussa Ciss président Domingo ah ma ne ko Assane Diouf yan sponsor nga àndal mu ne ma Zika service Sarl John et ak Diouf Solution Polomérie Kacalik ku couture ak siis teranga couture rama business ak muljo business ba léegi ci partenaires yi Diouf solution plombier DSP ma ne ko a Assane Diouf yan mbër ñooy bàkku si ci làmb ji mu ne ma Baye Mandione ak Zator Ada Fass Boy Baldé Thiat Boy Bambara Tafa Boy Bambara ak Samba Ndeleng samedi le 26 ak dimanche le 27 juin fii ci zone de recasement bu AIDB ngeen ànd ceeg promoteur bu mag bi le promoteur de la jeunesse promoteur bi nga xam ne làmb ju neex ay événement amateur yi dañ koy yàkkamti ndax dafa xam lamb dund làmb mën làmb mbokk yi bu ko kenn tardé ak Assane Diouf le promoteur de la jeunesse